Seydina Cheikh moo ne sama taalibe fu mu jullee gee ba muxtaaru gee jeex mu jàng juróom-ñaari hizib alquran juróom-benn hizib alquran yoo xam ne njàng mi gaawul ba ëpp yéexul ba ëpp tartiil mu ne su ko jàngee bu ko neexee mën na jiital laazimu subaam foofu la waxee nag na benn peru salaatul faatihi ci heure boobu wecci na juróomi téeméeri pere salaatul faati ci budut heure boobu waaw maa ngi ñëw boo ñëwee ba boo ja boo jullee gee muxtaaru gee li may waxit dem leen ci elmu nujum ku may déglu bu sëriñ Hadi Touré nga xool naka la jàngale waxtu yi ba àddina tukki muxtaaru gee dix heures et demi la yem dix heures et demi muxtaaru gee fa la yem ba àddina tukki nag boo jëlee dix heures et demi nga commencé jàng juróom-benn hizib gaawul bépp yéexul bépp minuit pile la minuit zéro minute mën nga ci jàng juróom-benn hizib ci alquran moo tax Seydina Cheikh du cuune tubaab bi bu minuit jotee du moom dem na ci bër bu set à partir de minuit rek sa calendrier day changé bindal la datu ëllëg bi léeg-léeg sax nga bëgg a tukki ñiy tukki Europe nii am ci problème ñu ne la euh, une du matin fekk yow tey ci une heure du matin la maanaam suba ngay dem fekk ñoom bu minuit jotee suba lañ ci jublu nga dem fekk ñu ne la vol bi dem na parce que minuit à partir de minuit ñoom yaa ngi ci suba voilà Seydina Cheikh nee na nag foofu sama taalibe bu ko neexee mu jiital laazim jiital wazifa jiital laazim bi saa bu la toogee bi mun wi ala kulli xaal mën nga ko jiital wazifa bi fa la problème nekk am na ku ma woo euh, xam naa mu may seetaan tontu naa ko waaye may jàllale waale ko mu ngi tudd yaakaar naa Puy Ablaye Puy su ma juumul waaye puy daal la sant puy bi moom wóor na ma mu ne dañ ko doon werante foofu ci Angleterre jiital laazim bi ci kii déedéet ci kii ki nga xam ne laazim ñaari yoon moo ko war ci bés bi ak wadifa ñaari yoon moo ko war la wala ki nga xam ne benn yoon moo ko war ci bés bi foofu la problème nekk xamuñ ne te ñaar yëpp wér na bu kenn bii alaaji malik moo ko fi def ñaari wasifa yi du alaaji malik encore une fois seydul xaaji malik indiwul dara lu bees ci tariqa bi mu indi mu ko jëlee ci cheikhul xaaji omar fouti cheikh omar lu na tiijaanee ko bind wala mu wax ko cheikhu na tiijaani moo njëkk di def benn par bés ba yàgg mu ne ku ma defal ñaar yi moo ma gënal moo ma gënal mu ci sa euh, boo demee ci euh, ñoo ma gën ñoo gën a xam téere yi ko indi sara ashaabul awraat boo fa demee fekk ko fa cheikh alhaaj omar nag ni ak cheikh moom del yi ñoo ne seydina cheikh lu mu génnee ci gémmiñam ne moo ma gënal loolu laay def moo tax cheikh moom del xaali jël bennam ba yokk ci beneen di def suba ak ngoon bi cheikh omar ñëwee ci moom mu jox ko tarixa bi muy def suba ak ngoon képp ko jëlee ci Cheikh Mohamadul Ghali wala silsila boo xam ne boo ko dàqee ci Cheikh Mohamadul Ghali lay daanoo ñaari yoon mooy safarata benn boo ci tardé da nga koy fay soit clair am na ñoo xam ne de gis werante naa ceeg benn ma ne ko gis nga sa bakkan nga topp rek buñ la doon may ñaari junni ak benn junni booy tànn benn million ñaari million booy tànn benn kër ñaari kër booy tànn benn jabar ñaari jabar booy tànn sa bakkan nga topp jeex na ñaari disquette yu rafet kii dëkk France am nationalité kii dëkk Angle euh, Allemagne am nationalité wala euh, américaine bu rafet boole ceeg un milliard wala un million kii Amérique française bu rafet boole ceeg un million ñu ne la ñaar ñii boo bëggee ñu jox la ñaar ñëpp wala kenn koo ciy tànn looy wax <coughs> yàlla bu di ko amul kayit <laughs> ah docteur yàlla bu mu di moodu moodu bu amul këyit keroog bambaam maase wala alaaji maaliga maase wala déet waaw yow bu ci àdduna bi bu la tànn loo ñaar nga jël ñaar ci yàlla nag nga tànn benn lu lu lu lu lu yàlla wax ci alquran jannataani fa bi ay alaikuma fa bi ay alaikuma rabbi fa bi ay ala rabbikuma tukaddiban ah nga am ñu ne la tànnal ci ñaari àjjana yi nga ne benn lay jël doye di nga moo tax Seydul Xaaji Maalik moom it bi ne di sama sëriñ tànn lay tànn bàyyi leen ci xel képp ko jëlee ci silsila bi nga xam ne ñaar mooy seen farata ñaar mooy sa farata wasifa suba wasifa ngoon laazim suba laazim ngoon soo jëlee ci koo xam ne benn mooy faratam ku mel ni cheikh al islam alaaji ibrahim ñes ak ñi mel ni moom benn mooy safarata wér na benn boobu mooy safarata waaye yow mi jëlee ci alaaji malik cheikh alhaaj omar fuuti ñaar mooy safarata leer na te nag dëgg dëgg nag foo digg naasiril xaq bil xaq bu fajar alaaji malik la amul keneen ku koy def foo ko digg ci sénégal addina bi wër ngal këpp malik Fawad di wele la wala Omar Fuuti yi ñoo ko instauré moo tax na kii jiital laazim bu suba bi ngay jiital waaye bu ngoon bi mënoo ko jiital bu ngoon bi daf ci bokk ci charte yi balaa ngay mën a laazim laazimu ngoon wala ngay wasifa wasifa ngoon fokk jant bi fokk tàkkusaan nga julli ko ba pare ci charte yi la bokk mënoo laazim ngoon wala nga wasifa ngoon te julli woo tàkkusaan ba pare moo tax booy jiital kay ay la yéen nag yaa xayti bu suba bi nga mën a jiital maa ngi ñëw bu suba bi la ñuy jiital waaye bu ngoon bi kenn mënu ko jiital man nag ci téere laay wax ci sama baay nee na wala sama maam nee na lii téere tariqa bi yëpp ci ànd bu suba bi jiital bu suba bi it condition la boo toogee ba minuit yow kese ngay liir wala ngay seetaan télévision ba minuit bul perte dix perte les teg jàppal ba set jiital sa laazim bu la wóoree ne it da xëy liggéey te liggéey farata la i'malu fa sayara allahu amalakum i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur mu wóor la ne da ngay xëy liggéey te paa yi ci jàkk ji demuñu fenn retraité nañ fii la ñuy toog na astaghfirullah asmanasi la ilaha illa huwa hayy qayyum astaghfirullah asmanasi la ilaha illa huwa hayy qayyum astaghfirullah asmanasi la ilaha illa huwa hayy qayyum léegi nga gis capaabu bu na boo ko dekkee bañ dàq la boo ne damay jaay gëm tarixa bi dem di yóosi paa yooyu nga xam ne pare nañ seen àddina bañ dàq la da ngay torox fii ci mbedd bi santuñ la paa yooyu xam nga dañ la sant bu la wóoree amoo fenn foo mën a wasifa lu dul xayu qayyum yooyu nga xam ne dañ koy baaral mel ni kuy baaral cin teg leen fa ni tege nga jiital sa wasifa min à partir de minuit bu la wóoree ne lii moo am te jàkk yi ci ëpp li fi ne de xanaa nga dem ci sama mbokk yu garaaw yi ñoom tukkulóor yi astafurlaa la kay kayum astafurlaa la kay kayum astafurlaa la kay kayum astafurlaa la kay kayum ñooñu moom foo mën a dégg ñooñu dawal nga dem wasifa ci ñoom danañ kayu kayum wér nga dem liggéey maa la ko sama docteur baa ngi rey de waaw ah, Mohamed la de paa yi yi ñooy wasifa pire man maa la ko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 nelaw ba kañ. waaw sëñ Baye Abdou sama sëriñ nee na ñun dañuy jimboo te tukulóor yi jimboowuñ waaw mais teguwul fen teguwul fen fa day gaaw rythme bi day gaaw ci awoon air boobu fa amoon léeg rek lañ koy soppi léegi lañ ko soppi mais bay boo daan wasifa ak El Hadj Abdoul doo ko mën a topp boo amul boo amul suuful dëgg doo ko mën a topp bu wasifa am ba pare ne nii la ko alaaji Malick daan defee mu ne te baatam a daan dominer baat yëpp boobu dafa fekk mu am ko doon tontu affaire am ko waxoon ci télé bi naan alaaji Malick ci suuf la daan wasifa mu ne du dëgg alaaji Malick baatam a daan mëdd baat yëpp moo gënoon a neex baat yëpp nag ma ne ñu fekkee wasifa Maodo ñu daw nañ ba fàtt allahu nuru samawati wal ard mu ne day gaaw day bar te day neex te bu ruume waaw ah, mu ne bi fi Seydi bu fi sëñ Babacar jógee bi bi fi El Hadj Malick jógee mu ne Seydi Aboubacar ñëw mu ne man ak Seydi Jamil ñoo daan diriger wasifa bi ak sëñ Njóoba sëñ Njóoba Diop mu ne ñoo daan diriger wasifa bi mu ne am na bés ñu wasifa ba daaneel mu ne sëñ Babacar ne billaahi bu ma amoon ndigalal takkal leen chaîne or kenn ku ne ci yéen dinaa leen ràngal chaîne or. ndax wasifa yi yonent bi bëgg na cheikh Seydina cheikh bëgg na alaaji Malick bëgg na mu ne waaye seenu or day Babacar takku sañu leen koo takkal fii ci àddina waaye bëgg leen ne yonent bi dana leen ko takkal àllaaxira ma ne ñoo ñoo daw fas Seydi Aboubacar lu mu wax yàlla def ko ah, ñoo ñoo daw fas ah, waaye nañ mbir mi nañ ko teg ci yoon rek waaw nañ ko teg ci yoon bu fekkee looloo am nag nga dem ci tukulóor yi wasifa ji wala nga wasifa ci sa kurus soo xëyee rek dem liggéey waaw jeex na te mooy dëgg bu dee bu dee xadara sax mën nga ko baaral tuuti waaye wasifa moom dafa war a bar baat yi bañ a ruume waaw su ko defee nag loolu pour ñu mën a wasifa li ma bëgg mooy bu fekkee da toog toog ba minuit nag nga am koo àndal ku mel ni sii di mbay wala oustaz euh, Ousmane ñëw seet la ngeen di toog di waxtaan ba minuit moo tax toujours waxoon naa ko fi taalibe tiijaan bu ne fexeel am 2 mètres malaanu wasifa sa biir kër soo amee ganu tiijaan comme yow bu tàkkusaan jotee ngeen yéey seen gerte ci caaf naan attaaya xëccal malaan mi ne ko booy acca ñu wasifa léeg ci ngay xamee ku bëgg tarixe bi ku ko bañ maa la ko wax am na ñoo xam ne jël nañ wér waaye tarixe bi rek lañ bañ boo nekkaa ñëw non booy dafa am benn kii bu may kii fii quoi booy dafa am benn jara mën na doxi waxtaan yi grand place mais boo malaan ni moom foofu ngay xamee gars yi fokk ñu wut lay mhm. foofu nag yow utal sa malaan rek teg dootoo bari xarit wala xarit yëpp avant tàkkusaan la ñuy ñibbi bu tàkkusaan jotee ngeen lekk seen gerte caaf naan ataay xëccal malaan mi ne ko boo yaasoo ñu wasifa ngeen wasifa wasifa tàkkusaan mhm. dagan na bu dee timis ngeen dem jàkka ja mhm. wasifa bu fekkee ne nag minuit la nga am koo àndal kooku sartatuñ ci mbooloo bu dee yàgg moom kese rek jiital leen seen wasifa may nañ leen ko à partir de minuit ngeen jiital seen wasifa bu dee da ngay tukki moom waxe noppi may nañ la ko jiitalal sa lazim jiital sa wasifa à partir de minuit dem sa yoon boo jullee fajar rek teg du la nga doon wax booy tukki jamonoy bëccëg mu euh, ci lan. nga kii tukki musaafir bi mën waaw. jamo bi mënul nekk boo jullee tisbaar julli tàkkusaan waaw foofu la foofu mën naa nekk bu dee kii tukki nga jiital tisbaar teg ci tàkkusaan bu la neexee laazim si fa dem parce que jàmm ji dañ la may jiital tàkkusaan bi moo tax foofu julli nga tàkkusaan bi pare te tukki bee tax nga mën a boole tisbaar ak tàkkusaan foofu may nañ la nga laazim si fa waaye ñu la mayut mooy tukki woo demoo fenn julli nga tisbaar ne xaaral ma boole ci tàkkusaan xaaral ma laazim wadifa balaa tàkkusaan mënul nekk fële li tax ñu may la ko julli nga tàkkusaan bi pare te bu dutoon tukki bi duñ la may julli tàkkusaan bi nga boole kook tisbaar bi waaw kañ waaye may nañ la foofu boo boolee tisbaar ak tàkkusaan nga laazim wasifa dem sa yoon waaw leer na benn tiijaan bu mu am càggante ut leen malaan wasifa deux mètres defar ko ba mu baax ut mbuus dugal ko ci soo amee sa gan bu ngeen toogee ba timis ngeen wadifa wala tàkkusaan ngeen wadifa jeex na am tiyaaba bu dul jeex te ci ngay xamee taalibe cheikh yi piir ndax am na ñoo xam ne wasifa bi da leen di lakk moom xalaatuñ toog malaan waaw waaw mu ngoog waaw bu dee da jiital nag bu la ñaar yëpp bu la neexee def ko bu la neexee njëkkee lazim bi teg ci wasifa booboo gën niñ ko nosee waaye boo koy safaane woon it wasifa ba noppi door a lazim it du tax nga baamuwaat ko wér na leer na waaw nag nga niñ ko nosee nga defee ko noonu moo gën lazim ba pare door a wasifa waaye boo wasifa woon door a lazim tax nga baamuwaat sa ah lazim beeg wasifa bi déedéet booy pare ci bii rek dugal ci bii boo boo doon wér di sa kurus wadd ngay dajjant ba sa kurus wadd dangay ngay àpp pare waaw walla nga juum mu wadd dangay ngay boo ne maa ngi toll woon ci douze yi reculer tuuti maanaam boo doon maa ngi toll ci fukk ak ñaar yi reculer dem ci fukk ak benn wala dem ci fukk ak ñetti kon astaghfirullah yéegal boo nee maa ngi toll woon ci dogu xam nga di nga xam fi nga téye woon nag yow it nag wala déet boo ko xamul nag baamul parce que nag ki nelaw be xamatul fu ne woon kooku nelaw na dëgg waxuma sax baamu waaye jàppi sax nga war a parce que xamoon lu xew ci diggante bi moom ki dem ba xamatoo foo yemoon ci dog bii wala bii moom dama jàppiwaat sax moom waaw bu sa kurus waddee moom xam nga ne ci 30 bi laa yemoon wala ci vingt bi wala waaw kay benn nga téye woon fii ba mu yàgg affaire bi ne nii da nga naan ah man fii laa yemoon waaye nga reculer waat tuuti ñëw boo nee nii mu wóor la ne fii nga yemoon reculer toujours jëlal li gën a not avancé soo paree nga jàngee ko ak téeméeri istighfar dégg nga wax soo paree nga jàngee ko ak téeméeri istighfar boo koy jàngee téeméeri istixfaar nag da ngay yéene rek ne fas naa yéene jàngee ko téeméeri istixfaar am na beneen sew-sew bu fa nekk da ngay tëj aw balaa nga koy jàng da ngay tëj da ngay tëj inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wazifa wi jeex na nga jàng nag nga indiwaat téeméeri istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba muy téeméer nga tëjaat foofu lañ la may nga tëj ñaari yoon mooy baada salaam baada salaam fokk nga taayawaat xam na waaw ah, moo tax Serigne Babacar si radiyallahu anhu alaa jëb du daf daan wax ne Serigne Babacar si radiyallahu anhu daf daan wax ne masalaam julli ak masalaam tarixa soriwuñ lu la jaaxal ci masala julli rek mu ngi ci masala tarixa bi xam nga booy baada salaam da ngay taaya waat doola sëlmal bii tamit booy tëjee ba noppi dangay def téeméeri istixfaar boo defee téeméeri istixfaar defaat nag inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi dem jeex nga door a ñaan am na bu gaa yi di def bàyyi leen ko da ngay gis Maodo Diop ñu ne ko ñaanal wasifa xaaji Maodo ñaan wasifa ba noppi di wax in allaha wa malaikatahu mbooloo mi yëpp àndaat ci inna allah Euh, Sénégal dañoo bëgg folklore bëgg folklore bokku ci bokku ci sama baat ñu poto bokku ci wasifa kenn du ko tëj ñaari yoon xaaji Maodo Diop mooy tëj ñaanam waaye bokk nag tëjum wasifa mu ngi mel ni li sëy Seydina Cheikh wax ne ñaari faatee ci benn jotaay bu ko kenn ñaanal ci sama bi benn faatee doy na àddina ak àllaaxira waaw ah. benn faatiya mu ne soxla bu mënul faj bu nekk ci asamaan ak suuf amut kon nañ ci bàyyi xel bu xaaji Maodo Diop di tëj wasifaam ñaanu wasifa bu ci kenn topp nañ ko bàyyi rek moom mu tëj su paree ñu raay waaye da ngay léegi dañ ko xewal ñëpp ci ànd ina bëgg folklore nit ñi dañoo li Serigne Cheikh waxoon ne diine ji glissé na jëm ci folklore mooy dëgg comme aminu fatiha imam malik dafa ne sirriya ñi koy def ci kaw dëgg la wér na ñoom wér na ci ñoom ci seen ngir waaye ñun ci ngiru imam malik seenu yan la imam malik wax benn waaye mas na ma ko wax ne ma waaw yonent bi wax ne pitax yi dinaaw ma ne ko ak fa am ma ne ko dimbale leen ñu contexte bi yonent bi di wax yonent bi fa nekkoon ca màkk ay pitax a fa nekk saalum gii pitax amu fi boo ne pitax amin di xaar pitax yu naaw billaay di nga dee sabaat dee te doo gis pitax bu naaw ndakaaru gi sax xanaa danga ne amin ba tas doo gis pitax bu nag màkk nag mbooloo maa bari riir ma bari pitax yi bari fa kenn du rey pitax fii bu fi pitax ne woon sax boo yee koy kuttu benn pitax du fi taxawaal waaye màkk gëlu nga xam ne foo tourné pitax yaa ngi ci sa wet boo nee amin ñu foog ne da leen di tiital ñu naaw ñu ne fokk nga ne amin ba pitax yi di naaw ma ne kon amin métti na di amin sirriyan la imam malik wax amin ci suuf waaw ak basmala ci suuf la ci kaw imam malik dafa ne si suuf Seydina Cheikh ne d'accord ma ci kaw mu ne foofu dinaa fa juyoog sama sama kilifa te tànkam yëpp te taalibeem yëpp fa la leen tënk dafa ne sama taalibe yëpp nañ tënku ci ngiiru imam malik waaye boobu daf ko sette ne bii ak ba ca masala ma ca laxdari Seydina Cheikh ne na d'accord ñu ne ko ban mu ne amin sirriyan d'accord euh, fatiha sirriyan basmala sirriyan mu ne d'accord ma ci kaw ñu ne ko lu tax mu ne sama maam rasulullahi moo wax ne ci xadis la indi de kuy boole miimu basmala ak alif ak laam bu fatiha yàlla du lakk sa làmmiñ ëllëg ca safara yonent bee ko wax mooy bismillahi rahmani mu ne comme alhamdulilah bi ci kaw nga koy wax moo lay wan ne basmala bi ci kaw nga koy wax ndax da boole miim meeg laam bi bismillahi léeg-léeg tiijaan bu ko yàq bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin baax na waaye da naan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin muy benn aaya kañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne kuy boole mu bas ma la ak laam bu faatiha yàlla du lakk sa làmmiñ ëllëg ca safara mooy yàlla du la lakk yonent bi day seet li gën a tuuti xam nga yàlla tëlewu ko waaye yàlla jombante nag rocci sa làmmiñ yi teg ko fële lakk la wala déet docteur yàlla yàlla tëlewu ko mën na ko rocci sa làmmiñ yi teg fële boyal la ba nga boy waaye day wane ne li yàlla gën a cër bi gën a tuuti ci yow yàlla du ko lakk loolu lay wane naam cër bi gën a tuuti ci yow te làqatu ci yow yàlla du lakk sax boobu cër loolu lay firi làmmeñ wi bu ko yàlla lakkul jëmm ji waxee noppi mooy li wax léegi ci maam Ibrahima ma wul yéefar yi ndax tàkk na ñetti weer am na ñu ne ñeen fukki fan la safara wi tàkk waaye dafa xool safara wi ne ko tàkkal waaye may borom tàkk man maa moom lakk waaye yow tàkk nga jagoo sa mbaax mooy tàkk tàkkal bi ñépp xam ne yaa ngi jël jëli waaye maa moom lakk nag man yàlla lakk ñëwagut waqul waqul naa yaa naaru kuuni tàkkal nu la neexe waaye bardan li muhammadan wa salaaman ala ibrahim yonent bee tax de tan ñin boobu yonent bee ko moom dardan li muhammadan ndax mu ci ndiggam boobu dardan <coughs> li ala ibrahim mu ne ko du moom de waaye sama waa ji ci ndiggilee tax maa la ko wax dardan li muhammadan wa salaaman ala ibrahim mu takk ñeent fukki fan waaye dara maam a toog di waxtaan coolment ak Jibril léegi Jibril indil ko añ mu añ ba suur jël dessert pomme lekk waxtaan ba xaqataay di tàppante ak Jibril firaw naa nga ci kaw étage ba tiim mu ne ngóor si lakkut di man lakk gi sax méttiwu ma ñàkk a lakk gi méttiwu waaye man nu muy kokkale di waxtaan ba di ma xool di ree te a gisul sax ndam bi sawara yi fayee ba maam Ibrahima génn mu ne ko man sa yàlla ji jàmbaar la de dëgg dëgg nag sa yàlla ji jàmbaar la jàmbaar la trop lakkoo loolu yéemu ma mais man mi nga doon ñaawal ci biir safara yi lu tax nag yow itam ak pen bi ma dal daj pour lakk la oh. mu ne ko kon dama la doon ñaaw mu ne ko séen naa la ngay waxtaan bay xàqataay di di wax mu ne ko moo ne jibril rek moo ma doon wan ay mbir ci asamaan moom lañ doon ree noonu mu ko jibril mu ne ko kon gisoo ko mu ne ko gisuma mu ne moo ma doon wéttali diiri li ma nekk ci safara wi yëpp wéetuma benn yoon mu ngi may indil wax yu di ma wax li suñ borom wax léeg-léeg mu ne ma téenal ma téen mu wan ma ay mbir ci asamaan ubbil ma ay waaw yaa yaa ko waxaatal ma dégg nuriya ibrahima malakuta samawati wal ard li yakuna min al muqinina waaw yàlla da ko ne téenal mu téen mu ne ko xoolal yi bul xool firaw na xoolal yi yàlla di ko wan malakutu sama boobu sax yi dañ ciy dóor secret yu garaaw waaw malakutu samawati wal ard li yakuna min al muqinina ndax ndax mu mën a dëggal lim gis ignorer safara wi ndax la ngay gis day tax nga ignorer metit bi nga nekk la ma doon gis moo tax muy ignorer safara wi mu ne Firaaw mu ne Namruus man loolu laa doon gis mais man gisuma la Namruus ne ko sa yàlla ji nag jàmbaar la dinaa ko teralee junni gëlëm junni béy junni xar junniy ginaar junniy nag santee ko waaye gëwuma ko nag ah. <laughs> gëwuma ko waaye dama ko koy sante ndax jàmbaar la te lépp rendi na ko terale ko maam Ibrahima waaye ne ko nag gëmuma ko waaye jàmbaar la nag ndax li ma la def ku ma ko defoon bu amul kilifa mu lakk jeex na moom épreuve yëpp la jaar yàlla rocciwaat ko reyloo ko doomam nàmm paaka bi ñëw mu ne ko rendil muy yàlla ne ko may rey moo tax sëriñ Babacar si daan wax ni wolof xàmmeewul rey ak rendi xàmmeewul dem makka ak aji makka xàmmeewul miraas ak séddale mu ne miraas la yàlla santaane defe ko ni mu ko waxee waaye diw mënu cee ñàkk a mos kooku séddale la sa alal miraas mii diw mënu cee ñàkk a mos mu ne nekkatul miraas séddale la séddale nag sa alal mu ne dem makka tourisme la aji makka la yàlla santaane waaw mu ne ren la nit di def waaye rey la yàlla di def moo tax maam Ibrahima ba muy rendi tere yi ñëwut moo tax Ismaayil deewut da nàmm na ba mu ñëw teg yàlla dindi rey ci paaka bi mu ngi rendi waaye yàlla rocci rey sirru rey la yàlla rocci bàyyee kook rendi moo tax ba muy dem bay wax ak boromam wa iza maritu la fa huwa yashfini xam na ne yëpp ci loxom la nekk waaw wa iza maritu maam Ibrahima ko épreuve yi ko yàlla teg kenn xamul nu mu toll waaw yal na yàlla defal sutura yal nañu yàlla defal sutura ngeen baal ñu wax ji bari na te xam naa ne amul benn njëriñ waaye daal mu ngi noonu moo tax Seydina Cheikh du foofu laa yema tiijaan bi Seydina Cheikh nee na nay wax bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nee na ku koy def yàlla du lakk sa làmmiñ ëllëg ca safara te yónent xadiisu yónent bi la yónent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam waaw bu bu dee da xalaat ne fatiha bi salaatul bi manqué na laa ilaha illallah bi manqué na da ngay indi salaatul fatiha wax subhaana rabbika rabbil izzati indi laa ilaha illallah wax inna allaha wa malaikatahu bu dee jawhara ca teg it nga indi jawhara indi la inna allaha wa malaikatahu dégg nga wax waaw la ñuy jàngee Mansour waaw mënatoo continuer jawhara waaw nga ne léegi nga dem ba ci biir mënatoo jàng jawhara ci biir wasifa wi nga dem ba maara deytaal ñu sa xel mënatul sa xol yooyu nag am na lu koy waral am na lu koy waral bëccëg bi boo xoolee rek am na loo def waaw boobu nag nooy xam nga ni ngay def boo demee dem mënoo dem jëleel salaatul faatiha nga def vingt salaatul faatihi tëj dégg nga mu wutu jawhara yi boo paree nag nga jàng téeméeri istixfaar hmm? ndax sa làmmiñ mënatu koo tudd mu ngi mel ni tey boo doon jàng faatiha ci julli ñu rekki ko am na maa la day càlle mënatoo tari faatiha dangay taxaw taxawaayu faatiha diiru li nga waroon jàng faatiha nga naan tekk taxaw ko rukku ku mënul faatiha doo mën saar moom waxe noppi te day am bu ne kenn amul dinaa ci ñëw fan yi te yooyu àddinaa koy waral mm, àddinaa koy waral du dégg ngeen ki eh, Alaaji Abdou daan wax Andalousia ànduñ fa woon waaw ah, kañ Andalousia dem naa ba foofa ci Espagne waaw la ko waral danañ wasifa tey incha allah waaw Abdoulaye ibnu ah, Abdoulahi al Andalusi duwuloon moom nag kañ am na fu ko alaaj Abdu waxee da dem ba mu yàgg nga yaakaar ne Abdoulaye la al andalusi wala taalibeem bala eh, kii nu ñu koy waxeeti taalibeem bi nu mu tuddati waay hmm? fekk leen ñuy root ca andalusi mu taxaw ñaan leen ndox ñu ne ko ñun suñ teen bi dafa déy béy mooy ndox mi bariwul suñ leen mayee ndox kon ñun duñu root da ngeen di muñ kañ buñ rootee ba pare ngeen root mu sëpp leen ba mu yàgg di leen xool ne waaye man de ñii sax de dëgg dëgg nag ah, ci xolam la ko wax di ñii daal li ñuy bari bari kenn ci sama taalibe yii rek ñu ma àndal xam naa wecc na mbooloo mi yëpp sëriñ bee wax loolu yàlla ne ko ah mu ne waaw yàlla rekki lépp lum jàngoon ci saa si immédiatement te boobu mokkaloon na juróom-ñaari njànginu alxuraan yëpp mokkal alxuraan mokkal juróom-ñaari jàngini fanweeri junni trente mille ahadis mokkaloon na ko yàlla rekki yépp mënatul sax jàng faatiha vide tout la ko def nag ndekete booba dafa gis benn su ndaw ci biir ci biir jigéen ñi ndaw sa rafet lool ba mu waxee loolu ci xolam rek yàlla pikiir ko ci ndaw si jël liimaan ba roof ko ndaw si yàlla mën affaire dafa rocc ci liimaan ngeeg njàngum alxuraan mi yëpp roof ko ndaw si muy taaru ndaw si mu ne nañ ko may ndaw si topp ndaw si këram taalibe yi ko sëriñ lii ëpp naa def yow itam mu ne eh sëriñ daa gis sëriñam kii ci jotut sama furu farag yëpp dem na ndax kii gis nga yàllaay wane boppam ñu dugal tànk taalibe yi ñii di daanu gàngri ñii di yuuxu mu ne dee rek waaye man ndaw si rek topp ndaw si ba këram ne ko yow yaa ma teree nelaw mokkalatuma dara ndax yow yow rek laa mokkal fim mu ne ndaw si ne ko man de pour nga takk ma yomb na mu ne ko nu mu yombe mu ne ko génnal ci diine ñëw ci li ma nekk wallahi mu ne ko d'accord na dubbi duggaat dem ci diine ndaw si taaliba yëpp ba ko dem ñibbi waaye bañ demee nag toogu dañ yor seen kurus rek di ñaan ne yàlla ne xam nañ ne am na lu xew waaye li xew nag xamuñ ko xamuñ lu xew waaye xam nañ ne am na lu xew ndax yow sax maandu teg yeggul ak ngay def sa nit nii kon tiim ñi ci suñ sëriñ bi waaye yàlla bàyyi na ko muy daw at at un an ñoom ñi delluwaat ca dëkk ba fekk koog ndaw si mu ne leen ay la yéwén nag sama xel a ngi ñëw fi mu ne mokkal naa faatiha te faatiha rek la mokkal kat ah, fi mu ne mokkal naa faatiha dimbale leen ma ma tuub duggaat ci lislaam ñu dimbale ko mu tuub ñu ne ko waaw sëriñ balaa ngay wax dara lii lu ko waral mu ne xeebaati yëgu leen ko waaye man yëg naa ko bi ma taxawee ci pinditeen bi dama xeeb mbooloo mi ma fi fekk ci saasi la yàlla rekki li ma yor roof ko ndaw si waaye dellu naa gannaaw ci sama xol te nee na yërëm na ma waaye yéen la ma rusee kon dimbale leen ma ma tuub ñu dimbale ko mu tuub ci saasi faatiha ji ñëw mu am kum jiital ñu julli tisbaar tàkkusaan mu yëg ne saar yaa ngi ñëw balaa balaa timis mu yëg ne li mokkaloon yëpp ci alxuraan mokkalaat na ko di ko tari kama kaana ni mu nekkee woon amaat na réseau réseau bi ñëw waaw kañ jërëjëf Hadji Maodo dañ ko formaté woon waaw kañ léegi dañ ko formaté woon léegi mu yëg na nag ndekete woo yàlla indiwaat na nag liñ formate woon yëpp yaat na ko récupéré waat na yëpp roof ko ko bu timis di jot rek mu yëg ni ahadis yëpp dugg na bu mu napp rek yëg ne ñëw na bu mu napp rek yëg ne ñëw na mu geesu mbooloo mi ne leen lépp ñëw na waaye wàcc naa ci suuf bés ñi tey ndax ndekete woo yàlla bëggul kuy xeeb ay jaamam ndax li yëpp xeebee la ma ko indi la moo tax Alaaji Abdou daan wax ne ni yàlla réyee ci ñun yàlla na lépp yàlla réyee noonu ci ñun ci mu ne yàlla na yàlla na lépp yàlla réyee noonu ci ñun ndax loo xool ci yàlla rek gis ci yàlla yàlla bëggul kuy sous ay jaamam yàlla bëggul kuy xeep ay jaamam yàlla bëggul kuy tuutal ay jaamam yàlla bëggul kuy doyadal ay jaamam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Penda jërëjëf waaw bismillahi bi su waxtu julli jotee mu wóor la ne waxtu wi day génn waxtu wi day jeex maanaam tisbaar jaa ngi jeex wala boog nañ jël tàkkusaan a ngi jeex yaakaar nga ndox muy ñëw waaye yegg seegut balaa yegg si waxtu wi dana génn am na lax du lax dafa ne dabu waxtu wi moo gën dabu ndox du noonu nee na tiim julli Seydina Cheikh nee na d'accordu ma dabu laab moo ëpp doole dabu waxtu mu ne comme xam nga ne ndox maa ngi ñëw te dana yegg si mu ne xaaral ndox mi bu ñëwee nga laab laabu xabas laabu xadas jàpp fay waxtu wi bu fekkee loolooy sa ngant mu ne bu fekkee jàpp mooy sa farata mu ne boobu laa d'accord xaaral ndox mi mu ñëw bu cangaay waree nga sangu bu jàpp waree nga jàpp donte waxtu wi génn na nga fay waxtu wi mu ne fi mu fi mu mooy bu la wóoree ne ndox moom du ñëw amoo ndox gisoo ndox kenn diggu la ndox ndox du ñëw mu ne foofu d'accord naa nga dabu waxtu wi nga julli ak sobe si waaye nga tiim ah wa in kuntum junuban aw taharu ah wa in kuntum junuban fa taharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastumu nisaa wa lam tajidu maan fa tayammamu Seydina Cheikh ne na foofu laa d'accord wa lam tajidu maan fa tayammamu mu ne wa lam tajidu maan la wax ay boo xamee ne di nga ko am kañ tajid ma jeex na yal na yàlla defal sutura maa ngi wax na ci kanamu aali kii borom xam-xam la billaay du du woykat kese kese de tagg yonent bi daf ko neex mu di ko def waaye aalim la day jàngale xam naa ko de moom yaakaar na ne loolu yëpp xaw ma ko wallahi xam naa ko borom xam-xam piir la waaye woye ko neex na te woy tiyaaboo ci nekk kon Xaaji Malik luñ juum rek nga jéggal ñu bu baax a baax kii it kazalika moom it fii ay asatisa ngi nii ñii rek Ousmane Gaye ngi nii jógee ba Tivaouane Peulh di borom xam-xam moo yor gàmmu ga yor daara ja Oustaz Sidi Ahmed Ablaye Diop a ngi nii Mansour Diop a ngi docteur yii nga gis nii ñu toog mën nañoo tukkal téere yi léegi booy wax ci seen kanam nga foog ne ñii pikiir rek lañ mën a opeere ah. <laughs> ni ñuy opérer lañu ñuy téere bi war nañ laa ñaan ah, yàlla wallaay wallaay euh, ñu jox rek ñu mos borom ibnu xasir dañu yasxabu almasalik yaqihi fi tariqihi almaalik yudakkiruhu llaha ida ra'aahu wa yusilu alabda ila almawlaahu booy ànd àndal ak sëriñ bu bu xamul yoon bu jàppee loxo booy ànd na nga ànd ak ko xam yoon yadhabu cheykhan aarif al masalik waaw bu ko defee yaqihi fi tariqihi al mahalik mu la segal nag kàmb yi ci yoon wi ak alkane yi ci yoon wi ak ñaara sànkute gi nii nga def ni la yemoo ci rek toog di wax rek léegi wax daa yomb te bari te ku fi ñetti mi wër ngay wax rek di taltali di nga wax ba dem safar yóbbal nit ñi safara waaw jërëjëf lii nag génn na la ci mm-hmm. waaw yudakiruhu llaha ida ra'aahu wa yusilu labda ila al mawlaahu mu wàcce boppam xam ak di la di la tegtal ka ne yàlla muy ni nga koy defee waaye lii ne da nga koo doon sa sa sëriñ bi àlaa jab dasis te damay wax toujours ni wa kullu nicmatin mahsudun ila tawaddu lu fi waay am am na ko iñaane ba mu des wàcce sa bopp wàcce sa bopp a tax nga toog fii ci suuf maasig nii bu la neexoon nga jël chef ba toll ni jóg leenu dem na ca tong di fëgg say tànk waaw di wax na ndax fii kenn du la neex nga wax waaye li lépp dafa tegu ci sariya ak xaqiqa man li ma ci neex mooy boole xaqiqa bi sariya bi lépp tegu ci yoon waaye nii lay may ndax teewaan nga ko duyee teewaan ko fa duyee boo waxee leneen sa yoxi bopp la tey la yonent la ndaw sa waxoon yonent bi dinaa la ko wax dafa fekk rasulillahi toog moom ñu wër ko mu ne ko jàkk di ko xool baag mu ne ko ya muhammad ñëpp si gi xool ko mu ne ko la mata xusaduka bal xaladu ñi la iñaane daal yàlla boo leen gën a gudd fan foo màgg jëm rek nañu fa màgg jëm at yoo am rek nañu kam di la iñaane rek si naaru lu bërit mu ne ko mahlan yaa yaa allin defal da daa commencé wax tàggalagul ndax lee mubtad la xabaar nag day dikk door a xam wax ji mu ne ko xataa ra'aw maa fiika fa yukmadu ñiy gis li la yàlla defal ci tiitar ak ak ak teraanga rek seen xol di dagg ci duñ ci man dara loolu la yàlla la dal eh, nu ñu ko waxee woon samaam loolu la koy waxee waay waay sëriñ laa maata xusaaduka bal xaladu niiran amin xata raaw ma fiika fa ma yukmadu <laughs> waaw jëf kontaan nañu yàlla na yàlla guddal sa fan ça c'est bien fait waaye ça bien parlé <laughs> eh? waaw waaw mais ñu ci xaaji Malick bi ah man de damaa gëlëm sëriñ Mansour ne nekku sa tuñum kaw dagg soo ëpp law jeex na ëllëg rek ngay desee waaw waaw li ma ko wax lii ni ko li ñu bër xel fii ci ci njàngalem sëñ Mansour lañ ko mujjee defee waaw noonu la dëgg dëgg la lu dul dëgg nag du dëgg dëgg nag boo ko fekk nag genn dong la ga necca tiyaana feeñ fii dong waaw waxoo fi ay naxasa xandang waxoo fi ay xini nini waxoo fi ay kenn xamu xaqiqa nga wax alquran ak hadis ak waxu cheikhuna tijaani seydil haji malik umar fuuti yu taal te ñooñu la nu am billaay bu ñu leen fi bàyyee xooba fu nu jëm te ko suppi seen seeni mbir seen njaal dina neex de tàcc yi mën naa am ak sar xol yi waaye bañ bañ dem ba ca mujj ga dañuy dem ba ci Maodo ku bëgg a suppi yëfam ak bu la juróon doo dem ak koo doon it ngay ndeysaan doo nga ciy mujj ak bu la àdduna bépp toppoon du baax ay ndeysaan doo nga ciy mujj ca mi ngi feeñ nag alxaajo Malik xabaaw Malik ma lam yu Malik lil kuramaay kenn du sa trondo docteur ki jàng danga maa joxoon lu am solo jërëtu sa nga di may joxaat <laughs> alxaaji Malick man xaaji Malick Maodo yu biinu Salick yow ma ni daay bu nu ko amuloon fu nu jëm alxaaji Malick xaba u Malick maalam yu Malick lil kuramaay kenn du seen góor gi moo tax sa ba di ko xool baag mu ne ko ذاك مسمان الكريم المرتدى sama turando mooy cheikhul masaiq de mambal irfani ذاك مسمان الذي قد جاءنا مودون إن النار الحدى من أحمد العدناني ذاك مسمان الذي ساد الورى ci lan moo duma tubaab yi ca ndar fekk leen Dakaaru duma leen tabax sawiya yi ni mu ko waxee bu fajar jotee foo dégg naasir al xaq bil xaq ak laa ilaha illallah ju àndul ak fecc ak tàccoo ki ndënd nga xam ne Seydi Aji Malick zaka musmaan alladi saadal wara bi siyaasatin wa samahatin wa amaani zaka musmaan alladi yarwi lana علة السدى من ماء فيدي بناني ndeysaan Seydi Aji Maalik ndeysaan xam-xam baa ngi ذاك مصمان الذي سعد الورى ndeysaan علة السدى من ماء فيدي banaani ab sëriñ day jàng waaye nag toog di ay xalaat ak dinaaw ci jaww jeeg loolu yóbbuwul kenn fenn wa ngay wax nit ñi sariya ak xaqiqa li nga xam li ba xam ko moom nga war a xamal nit ñi waaye bu leen wax ay kéemtaam dong yam ci zaka musmaana alladi yawi lana wala tasada min ma i faydi bannaani ولقد قدا بين الشيوخ مقامه موضه يعلو على الجوساء والدبراني يا نجل عثمان الذي أبقى لنا li nu sa maam ji indil muy sidaaji Malick moo nu rëddal nahjan qawiman salikal may daani tuuba lana tuuba lana tuuba lana muna bi wasilatin danga modeste moo tax nga wax loolu nil nal muna bi wasilatin kenu am mooy xayrul wasaili daaimil ihsaani Maodo raw moo tax muqaddamu Sidaaji Maliga allah jab doo la jox werd jox la lijaasa allah jab du Maodo ko jox werd jox ko lijaasa def ko muy xalifa seex waaye xalifa seex nga ndax xalifa seex bu la ñett toppoon dong ngeen ànd ci yoonu kondam di jaar ci njub xalifa nga ca ka sa sëriñ kon xalifa seex nga ni nga nekk sa tam yow mii ni nga nekk xalifa am kon Maodo raw doomi Maodo raw muqaddamu Maodo raw seti Maodo raw waykati Maodo raw eh jigéen ñi Maodo raw moo tax Alaaji Mansuur ne looloo mën a am kam saa wajat naa ni'matan min saydikum Maodo yaa maw ilal akhaali wa shubba defar mag ñeekale yi هو مالك متمالك من مالك بمن مالك هو مالك الفرق نلنو بقون أمنا نكو أمنا ننجول فاما نلنا المنا نلنا المنا نلنا المنا لنا الوسيلة واقا فارتقي ولا قرقدا بين سيوقي مقامه يعلو على الجوساء والدبران يا من مال سريا يا حي على من هداه يا ترجمان العلم والقرآن waay waay xaaj Malick jërëjëf lii de lii da xam nga kañ laa koy ñaan xaj male xam nga kañ laa koy ñaan incha allahu bu zawiya bi yeggee danaa la ñaan yaay seule personne bu may accepté nga wëy bu zawiya bi pare hmm. bañ koy ubbi Thierno Bachir